vite fait ñu ràññee ci crème boo xam ni kat maanaam boo ko defee sa yaram yooyu duñ la laal ràññee ko ci cuuraay boo xam ni day dàq yooyu ràññee ko ci ñaari insecticide yoo xam ni fu ñu gis ay gunóor ak mbóot rey ko ràññee ci puudaru mbóot boo xam ni suy mu ne ngalañ waaye ñu daal di am pâte dentifrice am boos vitale ñépp xam vitale qualité meew supérieure vitalé ngeen yàgg ànd ak moom mu yàgg leen a gunge <laughs> cey waa ju baax vite fait ak vitale ñoo leen di may waa ju baax Inno Fashion waaw sama gars yi euh, li tax ma wóolu leen mooy cinq 500000 yi waa ju baax lubal euh, xam naa ni naqari na leen trop mais euh, amul benn problème entre man ak yéen waa baax na malgré tout jàmbaar la nag jàmbaar la puisque taxawu bi ma taxawu ci campagne yi wax dëgg yàlla jàmbaar la ba tax na ma leen di ñaan rek. ngeen bàyyi lépp lu ngeen jàppoon bu leen ma ko dóoral bu leen ma ko menacel ci dara ndax nag euh, malgré bëri na ay affaire mais euh, Sénégal dañ ko jox bopp bokk na ci ñi nga xamante ne si dañ ko ràññeet la bu baax te leader politique yi ñu mel ni moom la ñuy wër donc man su ma ko ñàkkee euh, dina ma indil benn faaye bu rëy sama wàllu carrière politique donc ma leen di ñaan rek ngeen bàyyi lépp ci suuf mu sedd ah bu ko defee incha allah dinaa am nu ma doxalewaat ak yéen dinaa yëkkatiwaat benn enveloppe de 500000 francs mm-hmm. tegaat ko ci seen loxo euh, bu ko defee moom sax ngeen gisal ma ko joxal ma ko mille francs ngeen jël ku nekk mille francs mm-hmm. euh, le reste ngeen joxal ma ko maire mbootaay maire bi nu mu tuddati sax euh, maire bu xees bi bu ko ngeen ko gisee waaw maire voilà ngeen joxal ma ko ko mm-hmm. donc li ci des yëpp ngeen bàyyi ko mu sedda ah. parce que nag waa ju baax bokk na ci ñiy fale bokk nañ ca parce que tamit ku mu xeex tamit da ngay am problème parce que moom làmmiñam la yor te itam euh, mën na la yàqal lu bari bokk na ci ñuy fale fii bokk na ci ñiy folliwaate euh, vraiment <laughs> moo tax nag ma leen woo pour ñaan leen ngeen bàyyi lépp lu ngeen jàppoon mu sedd bu ko defee ñu ànd ma jox leen 500000 francs y aura pas de problème incha allah c'est ok merci benn problème lii moom. Mhm. yow rek yaa ci mënoon intervenir pour jàmm am. mais gënal waxtaan ak baax. incha allah waaw gënal waxtaan ak moom. incha allah yàlla baax na. incha allah. moom dafa yàkkamti sax waaye pourtant maa ngi doon prévoir sax pour may ko benn terrain tegal ko ci au moins 4 tonnes ciment wala cinq tonnes mu tabaxee ko mais bon comme yàkkamti na te terewul itam am na man na amal na ma njariñ donc ñu bàyyi lépp rek incha allah. ok merci beaucoup ah. waaw Aïssa. waaw xaar ma jóg uti lu ma am man. foo jëm. ah toogal. damaa bëgg a wax ak yow ñaari baat. waaw sa ndaw sii nga nekkal moom laa bëgg nga takk ko balaa dara xew. lenn waaw. ndax yow cas social nga yor te kee aide sociale la yor ay immeuble ma ngi fi ay oto a ngi fi ay magasin ma ngi fi mu bàyyi fi ñëpp visé la na yow la su ma doon yow nga takk ko de sa liggéeyub ndey nag a ngi door a feeñ te sa yaay ca fajar la taal. ñeex mi boo xëppee cere ji nag yaa ca yaa fa jaay paañ bul xajamal cere ji li nga wax de moom kenn mënu ko gën waaye man sama xalaat xam nga la mooy sama problème fi mu nii li ma tere nelaw fa nii yi ma lekk nanguwumaa naan nan laay jàkkaarlook anta nan ko damay takk deuxième fois femme mën na ma xëpp ndox walla ma xoj ma wala wala ma def ma andi ma problème waaye yow bàyyi moom nga may wax waxi anta ah. anta du dara ci société bi ba nga ko takkee ba tey dóori woo fëy woo atte woo xeex yàlla dikk na nag te ànd ak baay ma doon yow ma marié xale bii te su ma doon yow danaa ko takk ba noppi door koo yëgle parce que ndeyam ji elle est capable mën na laa takk xala Sénégal ne dangaa yoom te xam nga ne Sénégal tuuma rekk la def sa der bi nag yàqu du fis ma takk ba pare soo ko <laughs> waaye kon kafoo nii. ma laa dugg kaf. ak sa namu naa ko namu naa ko yu métti yëpp xam la laa bëgg nga jël photom taf ko ci biir kër gi yëpp moom ma xam ne li ngay woote dëgg la. danga maa fàtte. joŋee nga de. waa baax na. dama laaj ba xam danga maa fàtte ci diggante bi man ak joŋee ngay wax. ayu baay man de kooku waroon naa ko gis. ni koy ni nekk di ko commenter di ma non ah am photo xam nga lu neex dama lay invité dogu invité ko xam naa sax fan yii du am temps. boo xamoon envie bi ma am pour gis kooku découvrir kan moo lo jël sama xool yi xol xarit bi man loolu rek laa am envie man. lookaa di ngay wër xam nga yoo xam naa doo bàyyi dara. doo bàyyi dara en tout cas daal man j'aimerais bien dugg rek ci kër gi di taseeg photo waa fu ma xool côté bu ma xool di ko gis boobaa ma xam ne dëgg dëgg dëgg kafoo. jàkk hmm. man mariage bi dinaa ci def plainte police dinaa dem gendarmerie dinaa dem gis ak procureur pour en cas de mort en ndox mu tàng ndax ñii man xam naa famille bi ma dugg yaay ji de fit lay demee ndax mu ngi ne déjj ne dof buy sëy demut dikkut baax na waaw léegi yow waaw léegi Aïssa yow bi ma la yóbboo ci ndaw si nga ndog nga ndogoo fa ñaar fukki junni yi mu la may moom loo ci xaar doo ma ci jox fukki bul yeggale ah ñaar fukki junni yi di nga koy yemaleeg sa laaxi ngénte xam nga lu ma lay yëgal yow ah sa ndaw si may ma ñaar fukki junni waaw ah nga war maa doolli doollee tooma ma jóge ca kaw ga dikk toog sa kër gii di woor nu may ma ñaar fukki junni ah nga nga nga ciy sa bët boo moytuwul nag dinaa toog ci kër gi tëgg fi baara bay goo xam ne doo ko fecc fen fenn weejale laay def ndeyam ji xam nga ko jaar nii yenu samay bagaas dem ñu comme bonjour ci man o oh, doy na man pare naa ci lekkal cent mille francs yaa ngoo jëlal loolu toog nga lay laaj waaw ah, lekkal rek lekk yow sérieux dara maa ngi ci biir ci dàllu waaw ah, waaw lekkal lekkal lépp lekkal lépp na reesal jàmm lekkal waxtaan damay teg deuxième seetaan nga télé déedéet déglu nga rajo déedéet jar na seetaan non maa woo naa la bi ma waxee ma rappelé la woowaat naa la waaw waaw lan moo tax nga may laaj ba xam bëgg naa waa ji waaw <laughs> ah bien sûrement bëgg naa ko kay maa nag xam nga ne kuy dem bay waxi takk parce que kooku bëgg na nag waaw wax naa ko sama nijaay waaw ma présenté naa ko sama nijaay ba mu gis ko ba bien sûr d'accord na kay waaw nee dinañ jàpp bis waxtaan ma lu ci am après dinaa la wax maa yoratoo xale de bañ sëy may sëy nga naan ma sëy waa d'accord maa dama am gan waa sama copine bi la moo fi ñëw waaw ok allez gros bisous bye sama yaay. ay waay ji man ñàkk naa xarit. kon yow kii ay waay. yow sa problème gëmoo ma. ay waxu ñaan seeg doxantu xaw ma lan dem ak ñëw yooyu laa dégg. xam nga lu ma métti ci yow. toog bañ ne fekk ma fii ma sol sama robe bu weex taal toog ci dëgg lal bi ñu bindal ma. <laughs> dëgg la. ku toog fii naan bu pourtant waxoon na dëgg de. waaw baax na ba mu sotti ay mbalaan bi xale yu góor yi bàyyi ma toog jàpp sama ñaam. bi ngay bàyyi. xool kenn ku baax. Ah, kalaama daal. ah eh mi. fi dëkk wax naa da ngay question da nga gis koo bëgg rek commencé di fuy fuy nii sama kër de ah. en tout cas c'est pas qui est mais en tout cas c'est pas moi. <laughs> tàggatale déglu nga rajo kooru waaju baax si jar na seetaan kooka la ñi ñan la père ñun la ponkal yi yan ponkal waaw sa ponkal yi rek waaw lan la monsieur le maire moo ñu yónni mu ne père ubbil ba pare eh bu ngeen tijji may xaru su ngeen tijji may xaru eh bu ngeen demee ngeen ne monsieur le maire man bàyyi naa politique père xaalis la ma jox de oh doom xam naa lépp te dañ leen a yabal ngeen ngeen doon ay nervi bëgg a dugg ci kër gi ray ma cambriole la ma. non père baal nañ la bilaay baal nañ la duñ la laalaat bilaay. monsieur le nee na ñu bàyyi la. waaye na leen Macky Sall yónni tëjiw ma. kon baax na. garaawul ñu ngi dem. ñu ngi dem dañoo joxoon benn deux cent mille pour yow rek. ah. waaw dem leen dem leen. dem leen dem leen leen monsieur le maire naa parti boobu. sans que ñàkk na wërsëg yi. dañoo wërsëg dañoo wërsëg dañoo waaye maa ngi seen seen tànk yi demu leen de. kër gi yëpp nag ay caméra surveillance gis naa leen douze personnes ngeen yéen a ngi sonn ay télé cagoule yor arme douze personnes ngeen caméra yaa ngi leen di jël man kenn du ma rey lool man moom bëy laa kenn du ma rey ci rondam nga xam ne ma ñu may jéem a tiital naa ma président Macky Sall la ñu kenn yéen a wër nu ngeen ma rey ngeen di wër damay deewee noonu war a am vite fait ñu ràññee ko ci crème boo xam ni kat maanaam boo ko defee sa yaram yooyu duñ la laal ràññee ko ci cuuraay boo xam ni day dàq yooyu ràññee ko it ci ñaari insecticide yoo xam ni fu ñu gis ay gunóor ak mbóot rey ko ràññee ko ci puudaru mbóot boo xam ni suy mu ne ngalañ waaye it ñu daal di am pâte dentifrice am boos kon laa gamme vite fait. moo leen doon may kooru waaju baax. vitale ñépp xam. Vitale qualité meew supérieure Vitale ngeen yàgg ànd ak moom mu yàgg leen a gunge moo leen di may kooru waaju baax. Innovation. déglu nga rajo. kooru waaju baax.